da ngeen di fête seen 10 ans mën naa ne 72 heures la ndax fii ba dimanche la day baax ñun ñëpp képp ku responsable au du département ga nekk pouvoir wala opposition ak foo mënti bokk war na laa wuyu si ndax dañoo war a ñëw pour sargal si la war a ñëw pour sant la war a ñëw également pour bokk yow li nga xamante ni moom ngay fête ak say nit kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm sa taxawaay sa engagement rafet na ñëpp gis nañu di dalal bu baax a baax nag xelu département Mbacké surtout la jeunesse de Mbacké ndax stade bi yàgg nañ koo jooy te jàpp naa travaux yi ni muy avancé ak engagement entreprise bi am nañ yaakaar ne fii ay weer stade bi dina pare incha président ñëw ñëw inauguré ko mu nekk un bijou pour tout le département de Mbacké. ah di rafetlu li nga xamante ni tamit suñu frère euh, Fallou Diop def na ko. muy lu nga xamante ni vraiment lu am solo la euh, nga xam ne tey képp ku nga xamante ni rek euh, homme politique nga bu nekk ci département bi waroon nga ko teewee peut-être xëy na am na ñu nga xam ni dañu am empêchement mais lii moom lu rafet la di sant suñu frère Fallou Diop ak ñi nga xam ni ñoom dañu àndal ñëw fii yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen wax ni wax dëgg yàlla alhamdulilah quoi. ci 72 heures de activité yu Madakaw yi nga xam ne ñu ngi ko doon préparé depuis 4 mois ba yàlla def ñu si ci ak jàmm. tey nekk première journée bi muy benn final boo xam ne dañu ko organiser ci tournoi yoo xam ne Madakaw dafa amoon yéene mu nekk tournoi départemental xam ne équipe yi nekk ci département bi yëpp ñoo koy participer waaye bi ñu xoolee xatut ci temps bi ñu tànn quatre équipes Touba quatre équipes Mbacké ñu compétir ba ASC moom sa réew ASC Renaissance finalu soo ko doon compétir tey ASC moom sa réew gagné ASC Renaissance bu Mbàkke 3-0 ñu leen di féliciter di leen encourager li tax Madakaw def ko nag Madakaw dafa avaler dix ans de activité gis ne li ñu def ci sport dafa bari muy taekwondo muy làmb ji muy football daanaka bépp secteur boo xam ne làmb ko ko ci sport Madakaw dugal na ci loxoom ñu ne 72 heures de activité yi danañ ci dugal activité sport tax ñu tànn ci football. Madakaw nag benn yéene benn mbébét la ci am bëgg ñëpp yóbbaale ko mooy ngir sportu département bi dund ñun département de Mbacké moo nu ñor buñ sañoon Sénégal département de Mbacké moo ciy raw waaye gis nañ ne dañoo am ay manquement infrastructure ci sport muy bépp fànn nag. mu nekk lu Madakaw yàgg réclamé ci ne dañoo war a am ay infrastructure sport yu baax tey tax nañu ne bëgg nañoo yëkkatiwaat suñu kàddu ci stade bii nga xam ne président mag Sall moo ko mbébatal Mbàkke ba tàmbali woon ko di ko defar mu mel ne bi mu commencé ba fan jàppee na fala war a pare fala la travaux yi taxawee daanaka taxaw gi nag mooy lu war a dox ci 100 pour cent di dox ci 5 wala 10 pour cent parce que stade bi ba mu doo ko commencé nam doon doxee bu ñu ko doon doxee tey final bii fa lañ koy compétiré te ku gis final bi tey gis xale yi ni ñu mobiliser xam na nag mat nañoo accompagner te accélérer travaux stade bi parce que dafa jot. te Mbacké mérite la ci moom moom stade yi Sénégal gépp am. premier match bi ñu ko commencé ba ci final bi wax dëgg yàlla amul benn match boo xamante ne si am na ci jafe-jafe te loolu dafay wane ne xale yi màgg nañ ay responsable lañ am na lu ñu bëgg te nag man damay wax ne Mbacké ak ni mu toll. ak population bi dafa jaadu nag ñoom ay international parce que boo ñëwee Mbàkke amul benn quartier wala benn fenn fooy dem à partir de 16h 17h doo gis xale yi di génn di football. Touba gi gis ngeen ko xale yi dañoo bëgg football ba dañuy génn à chaque fois di ñëw sax di xatal waa Mbàkke seen terrain yi kon jàpp nañ ne bi nañu ko séentoo woon ñun waa Madakaw. a ah amee woon ñu koy yaakaar ñu tàmbalee ko woon ci bisimilahi rahmaani rahim suñu borom jeexale na ko ci alhamdulilahi rabil alamin ah ñu nekk ay responsable te xam ne gone amatul rawatina nag ndawi Sénégal gépp nag laa koy wax waaye rawatina ndawi département de Mbacké ñun dañoo am ku kenn amut yar ñu te jàngal ñu mbirum Serigne tubaa moom tooñ amu ci yàq amu ci te képp ku dëkk ci département de Mbacké foo mën a dem ci àdduna boo nee Touba wala nga ne Mbacké bu sàppe nga taxawee yaa war a taxaw ca kanam moo xam ngay gone moo xam ngay mag loolu nag cër la bu sëñ tubaa def ci ak njabootam muy département bi loo xam ne kuy gone wala ngay mag rek war nga ko xam sa kaw. yaa rafeti wax caméra yi nag li nga xamante ne si ne moom la ñuy wax mooy xale yi nañu maytandiku yàq gi ndax bu yàggul lu matul 6 mois gis nañ fi luñ mës sa gis ci Touba ba nu juddoo ba léegi mais il faut que ndaw ñu comprendre xam ne li ñuy yàq politiciens yi moomuñu ko tubaab yi moomuñu ko surtout nag lu am solo lu may wax mu mel ne lu ñuy wax station Total ndax ñëpp jàpp nañ ne Total. français bee ko moom mais il faut que nit yeewu ci loolu total yii ñuy gis ci senegaal benn français moomu ko man am naa sañ-sañu tabax station fii ci Mbacké man investir ci sama 200 millions jënd sama pompe def sama lépp dem am convention ak total total peinture rek la ci am ak couleur même carburant bi sax man maa koy jënd man il faut que ndaw ñi xam loolu bari na lu ñu yàq ci biir réew mi yi ñoo ko moom. sénégalais yi ñoo fa nekk di fa liggéey te defe naa ne réew mi nag fi ñu toll nga xam ne 60 pour cent ñëpp ay ndaw lañ a ah, jàpp naa ne war nañu am beneen mbébét bu bokkut ak motet bii nga xamante ne si ne moom la ndaw ñuy doxee. Madakaw de ku ci te bu sañoon benn ndaw du ca nekk ndaw yi département de Mbacké nag ñoo ngi lancé un appel di leen wax ne nañu roy ci kilifa yi fi nekk te topp njàngalem sëriñ bi. 72 heures de activité Madakaw Madakaw liggéey na ci lu am solo tey di première journée bi. suba ñuy def journée sociale di rendre hommage kilifa gu mag nag nga xam ne moom laa waroon a njëkke di Serigne dara Darma moom Serigne Cheikh na Fatma nga xam ne buñ nee Madakaw mooma korog bi ma waree taxawal Madakaw en 2013 Madakaw tuddul woon Madakaw damaa dem fekk ko dara ma fekk ko mu tëdd ca lalam ma ne ko damaa bëgg taxawal ab mouvement mu ne ma noo ko bëgg a tuddee moo ko maa ngi ànd ak juróomi nit kenn rek laa ci jël ku mat seede nga xam ne nekkutul Madakaw tey muy Abdou Lahad Faye mi nga xam ne mooy président ADE en 2013 sëriñ Abo na ma demal ba gannaaw suba nga dellu siwaat ba ma ñëwee moo ne ma tudde ko mouvement ànd jàppale askan wi dana barkel dana dem fu sa tànk yëgut nam ma ko waxee woon Madakaw lu ma sa song rek daan ko kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na suñ borom yokk ay leeram taas ñu ci barkeem ñu war koo rendre hommage suba war koo ñaanal dimanche nag di boo xam ne Madakaw dafa ànd ak 36 des femmes yu fidèle ci mouvement Madakaw ñu ànd di liggéey ñu bëgg leen a sargal dimanche fii ci boulevard Ndoyeen ñu ciy woo ñëpp bu loola jàllee ñuy woo Mbàkke gépp nag ci ñu ñëw ñu waxtaane waat Madakaw parce que Madakaw avenir am Madakaw mbébétam ak yéenam mooy département de Mbàkke raw ci senegal jërëjëf